ma asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat euh, di leen ziara bu baax a baax fii ci Touba Mbacké fas yéene ànd ak yéen rek ci xibaar yi nga xam ne moo fi bàyyeekoo fii ci weeru koor gi rawatina ci xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir. xibaar yi nag tey jii dañ koy door rek délégation bi nga xam ne dafa bàyyeekoo ci réew Mauritanie ci dëkk bi nga xam ne moo di Mabrok Mabrok nekk dëkk boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir jamono bi mu nekk Mauritanie fa la nekkoon doon fa jàng li nga xam ne moom moo di xam dëkk boo xam ne Serigne bi fonk na ko lool des fois mu fa yebal ay délégation Serigne Bachir Mbacké Abdoul Khadir di ko fa dem di ko fa teewal waaye yeesalaat relation bi nga xam ne dox na ci diggante moom ak boobu euh, boobule moom nag euh, ren ji euh, ni nga xam ne noonu la ko defee at mu jot mu invité benn délégation boo xam ne dafa bàyyeekoo Mabrok ñëw ci weeru koor gi mu nekk délégation boo xamante nii biñ ñëwee nag ziar nañ sëñ bi waxtaan ak moom mu rafetlu ko lool waaye sëñ bi nekk lool moom it da koy def saa su ne invité leen ñu ñëw fii mu teral leen waaye it def li nga xam ne moom moo war ci ñoom. ñu ànd teewlu kenn ci nga xam ne ñoom la sëriñ bi boole woon ak boobu boobule mu sëriñ Mourtala soo ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu yeesalaat diggante sëriñ Mountakha Mbacké Bachir ak dëkk bi nga xam ne moo di Mabrok. ku ne xam na ne sëriñ Mountakha bu dee def loolu li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek moom lay dundalaat min abarril birri an yasila al mar'u ahla wuddi abihi bokk na ci doom liy mottali ak mbaaxam muy jokkoog ñi ay waajuram daan jokkool ñëw bi sëriñ bi wax sàkku ba ñuy ñëw fii mu sonn ci ñoom defoon ko at mi weesu ca noonu la ko baaxoo defee fu borom xam-xam nekk ci àdduna si dana sàkku ñëw ba fii Touba mu teral ko comme ñu daan def jamono sëñ Touba diggante bi mu fi nekk yàlla dogal na yàggagut te ñu ngi ñaan mu yàgg lool waaye ku xam na ne dalal nañ fii borom xam yu bari yoo xamante ni seere laa ci sëñ Xaadim mii toog seere la ci yu jóge fu ne ci àdduna si waaye nag réew mii di Mauritanie nga xam ne ñoo gënoon a jege Serigne Touba gënoon ñoom day mel ne boroom xam-xam yi fa gënoon a ràññeeku ñëpp diggante at mi wala ñaari at mi néew na ci koo xam ne moom ñu mag ñi ba ci ñu mujj ñi ñëwut yendu si fii ak sëñ bi sëñ bi teral ko jaar ak moom fi sëñ Touba daan jaar ak ña fa nekkoon loolu dëgg dëgg lu rëy rëy rëy loo xamee ku xam histoire loolu dana rëy ci yow loolu ku xam li ci sëñ Mountakha jublu xam ne loolu rëy at mi ak ñaari at yi dëgg dëgg ñi fi ñëw bari na te ku fi ñëw ba jóge fi ci ñoom loo mage mage ak situation yoo mën a nekk day mel ne da ngay yàkkamtiwaat ñëw fi li ngay ñaan mooy yàlla naa fi dellusiwaat ca fekkaat fi sëriñ bi loolu nag day mel ne kon jéego yi ku ne xam na ne li ci sëñ Muntaxa jublu am na ko ci mooy lu neex Cheikhul Khadim lu dundalaat kóllëre yu yàgg yi loolu mi ngi ko ci am bu dee moog waa daara ji nag moom defe naa seen diggante benn lañ comme li mu wax léegi rek nee na ñi ay doomam lañ gis ngeen kontaan bi mu am wax na làkk na leen ne leen gan gu ma am di yéene ma ko gënal ndax ñi ay doomam lañ moog waajur yi ñii ñoo nekkoon moog maam yi ñii ñoo nekkoon seq nañ lu baree bare baree baree bare doy na sëkk nit xam nga fu mu nekk rek jànge fa li ci gën a yéemu ñoom ñii ren bi ñu ñëw ñu andil ko lu gën a dëgëral loola andil nañ ko ay documents yu bari documents yi daw na yaram ñu ngi ko tàmbalee ci lettre boo xam ne seen maam Muxtaar moo ko bindoon seen Tuubaa di ko wan ne ko li boole nit ñi ak yow di boole wu ma ak yow mooy at njariñul àdduna wala yooyu yàlla moo ñu boole moo tax maa ngi sàkku ci yow maa ngi bëgg a dellu waaye nag ma jox boo xamante ni dinaa la ciy fàttaliku su ma demee siiw na lool ñu ne sëñ Touba booba ñaanaloon na ko. ba léegi eh, ci délégation boobu nga xam ne moo bàyyi ko ci réewum Mauritanie ci dëkk bi nga xam ne moo di Mabrok te sëñ Mountakha Mbacké Bachir eh, jàngee fa. biñ ñëwee ci Touba dem nañ visiter ji université bi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg a taxawal ci bërëb bu sell bi di Touba fas yéene cee def 39 milliards de francs CFA mu nekk liggéey boo xam ne. ñoom ñi nga xam ne ay naar lañ yéem na leen lool tey it rafetlu ko bu baax a baax a baax ginnaaw boo xam ne nemmeeku nañ ko ànd ko ki nga xam ne moo jiite liggéey bi wala lenn ci liggéey bi di euh, Abdou Lahad Ka ñoom nag ginnaaw visite boobu am na kàddu yoo xamante ni ki jiite délégation bi di Cheikhul Khadim moom naar la waaye Serigne Touba lañ ko tuddee bokk ci délégation bi am na kàddu xam ne yëkkati ne ko mu jëm ci université bi ak Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñu ànd teewlu ko. ok salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki maa ngi leen di nuyu eh, mbokki talibe yi ñëw naa fii tey Mauritanie la jógee ñëw fii eh, man man mii tudd Ahmadul Khadim doomi Alaaji Ahmed Sougou Fara buñu buñu ko xam fi Touba Ahmed Taïf lañu ko tuddee nekkoon na ak sëñ Modou Moustapha si Taïf entre les années 1939 1940 ñëw nañu taw xalifa bi mënu invité pour pour euh, def ak moom ñetti fan wala ñetti fan euh, comme l'année dernière def nañu loolu léegi ñëw naa tey dem nañu si projet bu boo xam ne un projet d'état boo xam ni man xalaatu moon ni si en Afrique surtout ouest d'Afrique mën na am projet comme bi gis tey un grand un projet d'état et à travers euh, ci ci ci ci bi maa ngi nuyu sama mbokk bi euh, Abdoul Ahad Ka ci effort bi muy def tey gis naa euh, selon ce que j'ai vu malgré que j'ai une expertise concernant kii la j'ai vu un grand projet un grand projet au vrai dire le frayage le, le, les fuites le, le gravier le calibre la manière dont l'équipe travaille vraiment j'ai vu euh, j'ai vu un travail complet te wolof tey daal gis naa day benn liggéey boo xam ni am na solo boo xam ni jaar na si norme amul boo xam ne passé wuñu dara te li si gën neex si affaire bi mooy waa Touba ñoo ko ñoo ko tabax matériel Touba la liggéeykat Touba la euh, waa Touba def nu neex lool te fii à ki maa ngi laaj mbokki talibe di leen ni yëpp ñoo ñoo ko bokk ñoo bokk affaire bi kon ñoo daju xelu xayab pour yëkkati pour dimbali sëñ bi ci pour projet bi mu pari ti ci pour dans les délais prévus mu nekkoon euh, kàddu yi nga xam ne Cheikhul Khadim moo ko yëkkati ab naar la bàyyeekoo ci réew Mauritanie ci dëkk bi nga xam ne moo di Mabrouk ñu ñëwoon euh, ci invitation boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir moo leen ko defal fii ci Touba Mbacké ci biir weeru koor gi mbokk yi xibaar yi euh, dañuy wéy fii ci Touba dem ci jumaa ji ci ndox yi nga xam ne Muxaddamatul ma ñu koy def ki nga xam ne nag moo di Soxna Bali Mountakha ku ne xam ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ci dëkk bu sell bi di Touba waaye di jàppale ñi nga xam ne ñoo di néew ju doole yi waaye lépp loo xam ne liggéeyal seen Touba la mu ci dugal loxoom moom nag indi na ndimbal gu takk goo xam ne da koo jox waa daayira Muxaddamatul Xidma ngir jàppale leen ci ndog yi nga xamante ni moom la ñuy def ci bërëb bu sell bi di tubaa ci diiru weeru koor gi ndog yooyu nag ak xéwal yooyu nga xam ne biñ koy indee am na kàddu yoo xam ne kenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey yëpp daayira Muxaddamatul Xidma di sëriñ Abdou Lahad Bousso Mass yëkkati na ko rafet lu baax a baax taxawaayub euh, soxna Baali Muntaxa waaye liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ak yëg yi nga xam ne am na ko ci daayira Muxaddamatul Xidma ñu ànd teew lay kàddoom kon ñu ngi leen nuyu ci turu sëriñ Afiya Bousso mi nga xam ne mu jiite daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaay Tuubaa di leen sant bu baax di leen gërëm ci bu ngeen demee ngeen jot lañu soxna si ak cant ak ngërëm te xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi xel bu baax te xam ne xam nañu fa mu nekk ak pas bi muy doxee ñu ngi koy ñaanal ci bàkki suñu Tuubaa mu eggale yéeneem boo demee daal ne soxna Baali soxna Baali Nuuru Darayni wala nga soxna ba Baali jàmbaari maam jaara boo ci wax baax na boo demee nga xamal ñu ko waa day Muxaddamatul Xidma ñi ngi lay bàyyi xel ñi ngi lay ndokkeel ci weer wi tamit di fas yéene la nga ñu waxoon lu nekk nga ànd ñun waxtu nekk yaa ngi koy jëfe ndax yëmut foofu léeg day toog ba yàgg mu togg ay ñam yu bari yónni fii ci jumaa ji jox ko fi kon loolu lépp boo ko dee def positif ak bëgg lu baaxam moo tax ñu di ko def moo tax ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko bàyyi xel ci lépp lu mën doon ñi ci def ànd ko moom nga xam daal jëfam ji sedd na suñu xol lool te ñi ngi ñaan tamit Sëriñ Tuubaa mi di ko tax def euh, fulal ko ko ba egg fu dara kéewul ñu santaat yàlla bu baax ndax yëf yi du gone du mag du góor du jigéen pas-pas rek la ak jëf ku jëf lu baax yaa moom ku jëfun nag yow yaa jëfut waaye jëf ju baax ku jëf yaa ko moom te soxna Bali fépp fu mu xam ne mbégum Sëriñ Tuubaa nga fa ma nga fay dugal loxoom mi ngi koy bàyyi xel kon daal ñun waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ñi ngi mu nekkoon euh, kaddu yi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Bousso Massa moo ko yëkkati ci jumaa ji doon ko jàppale waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ci ndog yi nga xam ne moom la joxe mbokk yi loolu la ñuy ci xibaar waaye ñu baaxee leen njàngum euh, kuréel bu daara Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne jàng nañ ko fii ci résidence Khadim Rasoul ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké Bachir ci biir weeru koor gi lépp rek di ni nga xam ne ni lay sëñ bi di dundalee weeru koor gi saa su ne santaat leen gërëm leen ci teewlu gi ak ànd bi ngeen ànd ak ñun saa su ne ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci Touba ci weeru koor gi dig leen daje ëllëg incha ci yeneen i xibaar jërë ngeen jëf xaliban xayru sa salaam المنتقى أوصل